Amnesty International section sénégalaise RADDHO article ñoo daje pour mbiru Guy Marius Sagna Euh, tey mënoon nañoo wax ci mbiru faatu doomu aadama yi Sénégal parce que li tax a jóg organisation yiy sàmm yelef ak àqu doomu aadama mooy sàmm doomu aadama bi te droit à la vie mooy droit bi nga xam ne buñ ko garantirul beneen droit munta am donc tey ginnaaw li ñu joytu faatu doomu sénégalais yi état bi jël na engagement état Sénégal ne dina ci jóg donc bu fekkee ne lii di am tey dina wéy di ngeen ñu fi gisaat ay fan yu néew pour ñu wax ci mbir moomu parce que droit à la soxal nañu li ñu indi tey aussi mooy li ñuy wax dignité doomu aadama li ñuy wax sûreté ci état de droit sûreté mooy lépp li nga xam ne jàpp nañ ne du délit du infraction lépp li nga xam ne constitution bi maye na ko li ñuy wax droits fondamentaux ak droits yi nga xam ne convention internationale yi ñoo ko consacré ak xalaatu doomu aadama ci démocratie li ñuy wax liberté d'opinion ak génne xalaatu doomu aadama li ñuy wax liberté d'expression loolu bu fekkee ne mënta am ci état de droit bu ñu yeboo wax ne Sénégal bàyyi nañ démocratie ñu ngi ci dictature wala ñu ngi ci royauté donc tey mënuñu ne démocratie lañ ba pare boo waxee loo xam ne àndul ak bëgg-bëggu nguur gi am na institution yoo xam ne dinañ fexe ba nasaxal la bu fekkee ne li nga xam ne constitution moo la ko may ne yaa ngi koy jëfandikoo mun nañ la ci néewal doole ba tey ñu yóbbu la foo xam ne cas Guy Marius Sagna boo demee ñu ngi ko yóbbu ci ñuy wax ne prison quartier de haute sécurité maanaam jàppe nañ ko doomu aadama boo xam ne dafa dangereux te loolu xam nañ ne mu atteinte à la dignité humaine la mais atteinte à la présomption d'innocence ndax li ñu njëkk a wax ci droit mooy tant que juridiction waxul ne li ñu lay topp yaa ko def dañuy jàpp ne defoo dara déjà ci jàpp bi ñu ne la tey dañuy ñi la war a seet si sax dañ koy xàjj Guy Marius Sagna juróom-ñetti visiteur rek la amagum bañ ko teyee ñaari weer ak léegi ñu yóbbu ko ci prison boo xam ne euh, quartier bi nga xam ne dañu ne terroriste yi fa lañ leen yóbbu ci waxu état bi ndax ñun doomu aadama la ñu xam ñetteel bi ñu jàppoon ko ak juróom-ñeenti nit tey ñu bàyyi juróom-ñeenti nit ñëpp ne yow rek la ñuy téye ci loo xam ne la ñu def benn jëf la ñoom ñoo ko waxtaanandoo booy jàpp kañ ñëpp ngay jàppandoo mbaa nga bàyyi jëpp mais bàyyi juróom-ñett yi ne ko yow moom mënuñu laa bàyyi ci nag mu jóge ci institution bi nga xam ne ñun ci suñu jargon ñu ngi koy wax temple de temis la déesse Thémis ñëpp a ko xam kooku maandutee taxoon ñu daal di ko dakkantal justice ak équité partialité indépendance tey mu mel ni ñi nga xam ne ñooy institution yi war a garantir liberté sénégalais yi droit sénégalais yi indépendance boobu motul tey parce que nekk nañ ci système boo xam ne mënuñu exercer seen indépendance donc tey muy boo ko seetee muy violation yoo xam ne foo ko mun di xoolee rek li ñuy wax les li ñu doon tuddee droit de la première génération mooy sûreté liberté doomu aadama bi am na ko ci république rupture de la de l'égalité bu mënta am ci démocratie discrimination mënta am stigmatisation munta am gis doomu aadama rek ne ko kii moom euh, dañ koy yóbbu foo xam ne dañ koy làq société bi doo xañ ko ay droit loolu tey bu demee bay am Sénégal nag jaaxle war na am moo tax nag tey bu ñu waxul woon defe naa dina jaaxal nit ñi moo tax ñu taxaw tey ne xeex bi defuñu ko pour Guy Marius Sagna pour sénégalais yëpp lañ ko def defe naa ne Sénégal dañ ko considéré woon ci pays yi nga xam ne mooy li ñuy wax pays précurseur de la démocratie de l'état de droit ak des droits de l'homme Sénégal dañ ne woon sax îlot de lumière dans un océan d'obscurantisme maanaam Sénégal leeraange la ci Afrique boo xam ne dafa lëndëm mais tey bu ñuy joxee exemple Cap-Vert ngay dégg Ghana ngay dégg ak yeneen dëkk comme ay îles Maurice ci pays sous-développés yi mais Sénégal kenn tuddatu ko donc loolu defe naa Sénégal mérité wul loolu te tey ni ñu ko waxee am nañ ay défis majeurs maanaam défi sécuritaire gis ngeen terrorisme bi ni muy demee ci suñu sous région bi pétrole bi war a dem génn ëllëg wala gaz bi nga xam ne war nañu xeex ba droit économique et sociaux sénégalais yi ñëpp mun cee jëriñoo xeex ak multinationales yi nga xam ne déjà ci licence yi rek ndax nañ Sénégal ba ñëw indi fi ay euh, ay manœuvre ba jël suñuy licence jaayaat ko lekk ci ay milliards te Sénégal jotagul dara yooyu nag munoo ko am ba pare ñu ñuy delloo nag ci loo xam ne ku wax ñu jàpp boo manifester ñu jàpp boo nee attroupement am na duñ jéem a disperser dañuy jàpp yóbbu kaso loo xam ne même buñ la jàppoon li ñuy wax comparution immédiate la war a doon dañuy choisir information pour mun laa tey juróom-benn weer at ñaari at loolu nag suñ ko bàyyee ñu ne bu boo ñun sax suñu organisation yi ñu daal di ko tas moo tax tey xeex bi xeex de principe la dinañ ko xeex pour képp koo xam ne citoyen nga bul wàcc yoon. booy manifester teg ko ci yoon booy def attroupement non armé bu ñu la nee dispersé wu nga dispersé wu mais de l'autre côté aussi ñu ngi ñaan institution yi ñu xam ne nekkuñu fi muy police di tribunal di ñeneen nekkuñu fi pour défendre un régime mais pour l'intérêt général donc tey xeex bi duñ ko yemale fii ni ñu ko waxee CEDEAO dinañ ko fa yóbbu bitim réew déjà xeex bi dem na fa parce que rapport yiy génn ñu naan Sénégal arrière na juróom-ñeenti place yi démocratie mais bu leen yaakaar ne loolu dafa jóge ci eh, ci jaww ji rapport yi ñuy def ak documentation violation yi ñuy def di ko dugal ci suñu réseau yi mais moo tax ba ñi nekk bitim réew mun a xam tey li xew Sénégal xam ne Sénégal am na loo xam ne tey mënatuñ koo jox weg bi ñu ko joxoon xëy na bu njëkk ba doon ko considéré comme un état phare avant-gardiste en matière de démocratie donc tey jàpp nañ ne ci Guy Marius mun nañ wax ne li li mu cristalliser mooy violation yi nga xam ne yëpp kenn waru ko teg doomu aadama wax nañ ko stigmatisation discrimination boole ci nag euh, ñu teg ko foo xam ne jàpp nañ ne moom sax warta bokk ak yeneen citoyens yi seen place te loolu defe naa ne tey boo seetee xeex yi muy xeexal travailleurs yi Sénégal ak mbiru électricité bi nga xam ne ku ne laalu la itam da ngay wax lu la neex loolu yëpp tey ñu considérer ko comme un ennemi parce que jàpp nañ ne day empêcher un pouvoir politique mu tourner en rond moo tax xeex bi war na dépasser non seulement militant des droits de l'homme yi mais dinañ ci profito daal di sumbaat yeneen xeex yoo xam ne parce que organisation de défense des droits de l'homme d'abord war na fexe ba violation bañ a am mais bu violation amee waru galam mooy mu dénoncer ko fexe ba violation boobu taxaw mais aussi fexe ba violation boobu bañ a tee am tey nag amuñu Sénégal comme yeneen dëkk yi comme Bénin ay institutions judiciaires yoo xam ne bu lu mel ni amoon da ngay def requête devant la cour constitutionnelle parce que détention arbitraire am na ñu mun cee wax dans les 24 heures amul Sénégal euh, liberté provisoire ngay mun a déposer te liberté provisoire bu procureur bi defee réquisition contraire daanaka juge bi presque am na mais lié mais même bu passé outre réquisition yi bu parquet defee appel tant que cour suprême eggul foofu mënoo génn donc gis nga li ñuy wax tey ci système archaïque ak inégalité des armes procureur mooy jàpp mooy choisir mode de règlement bi te pendant poursuite yëpp dafay am voix prépondérante maanaam moo yor te procureur dafa ci nguur gi la wekku bu jotee instruction écrite lu ko nguur gi wax moom lay def war politique bi donc du question indépendance personnelle des magistrats magistrats yi jàmbaar reñ mais système bi ñu nekk mayu leen tey ñu liggéey liggéey boo xam ne dinañ garantir droits fondamentaux des citoyens te état de droit li ko lal mooy ay institutions yoo xam ne dañuy jouer rôle d'arbitre te pour ñu mën ko jouer il faut ñu doon ay institutions yu indépendantes impartial mun a def seen liggéey tey loolu amuñu ko donc xeex bi ñu nar a sumb fan yi ginnaaw yóbbu mbir mi fi ñu ko war a yóbbu ci yoon mooy fexe d'abord ba réforme ci conseil supérieur de la magistrature ñu indiwaat ko waxuñu ay réformettes comme yi fi amoon nañu may magistrats yi ñu atte ci kaw seen conscience ak li bi wax mais mun a aussi garantir indép euh, liberté sénégalais yi seen droits fondamentaux ñaareel yi mooy juge de la détention de la liberté tant que procureur mooy buum di buumi te procureur mu ngi nekk ci ndigalu autorité pouvoir politique bi bu kenn yaakaar ne pour poursuite yu mel nii comme yu Guy mari Sagna ay liberté provisoire moo koy génne Babacar jóob bu génne tey lan moo ko génne mais xam nañ ne bu génnul woon université jàng du am dañuy yelwaan avocat yi ñëw leen def liberté provisoire ñëw leen gaaw pour génne Babacar Diop parce que pression bi syndicat yi ak étudiants yi indi woon mayeetul woon ñu téye Babacar Diop prison donc li gën a Babacar Diop du feey mais pression bi am université donc ngeen xam ne du justice mooy génne nit ci cas yu mel nii bu doonee cas normal justice baa ngi liggéey normal mais cas boo xam ne pouvoir politique bi moo ko dicté du justice mooy indi solution tey rapport de force médiatisation bi ñu ci war a def mobilisation sénégalais yi solidarité bi ñu war a am ci kaw Guy Marius mais sàmm ñoom parce que lii boo nee Guy Marius Sagna la dal daluma rek yaa ngi juum donc ku ne war nga mobiliser wu donc tey moo tax ñu tenir conférence de presse bi pour informer sénégalais yi ñaax presse bi ñu répercuter li ñuy wax fii tey xam ne lii am Sénégal tey li ñuy wax droit primaire droit grégaire kenn mënu ko respecter Sénégal te enjeu yi am droit à l'environnement droit à la sécurité bi nga xam ne sénégalais yi tey ñu ngi koy ñaan ak droit économique sociaux pétrole bi bu génnee nan lañu fexe ba mu impacter population locale yi bañ multinationales yi di ko ŋàcc di dem combat yooyu ñu waroon a mën a tey mënuñu koo mëne ñu ngi indiwaat ci combat yoo xam ne jamonoy dix-huitième siècle dix-septième siècle la ko yenn peuples yi réglé donc tey ñu ngi ñaan une nouvelle fois sénégalais yi mobiliser que état bi xam ne amul beneen alternative lu dul respecter doomu aadama leneen loo def tey bu fekkoon ne répression mooy tax doomu aadama du wax mur le Berlin Berlin du daanu yore pas le printemps arabe arabe yi ku leen gënoon a gën a forte ay armée yooyu yëpp daanu na tey donc combat bi ñuy def combat d'arrière-garde la dañuy lutter ak contre-courant de l'histoire te loolu defe naa dañuy gën a doñ tooñ doomu aadama yi détourner leen de l'essentiel donc moo tax ñuy def conférence bi di ñaan aussi ni ko waxee rek répercussion bi gën ci am au niveau national ak international ba Guy Marius bañu ñu ko def délit topp la mais ci démocratie kenn mënta arrêté nit ci kaw ay opinion wala liberté d'expression loolu mënta am ci démocratie ñaareel bi aussi discrimination ak traitement inégalitaire bi am kenn mënu ko weddi ñetteel bi stigmatisation bi am ci Guy Marius kenn mënu ko weddi donc tey bu ñu kenn reproché ne dañuy faral Guy Marius Sagna question de principe combat de principe te bu génnul aussi combat bi du mus a dakk te defe naa suñu image yu Sénégal rek moo ciy gën a Euh, euh, euh, li ñuy wax jël un coup parce que rapport yi jóge bitim réew yëpp ñëpp ko gisandoo tey mun ngaa weddi ne rapport yi teguwul fenn mais bu fekkoon ne arrêté wuñ kenn kenn du ko wax bitim réew kenn du ko wax bu ñu waxee rek dañ ko gis Sénégal. oui defe naa Guy Marius Sagna ku ko xam lettre bi mu génne démb Sénégal yëpp jàmm jàngandoo nañ ko xam nga dañuy wax naan liberté li mu mel ci nit. moom la pesanteur mel ci koor boo yéegoon ba ci kaw asamaan si sànni xeer xeer bi du dem ci kaw mu day wadd parce que c'est la loi de la gravitation universelle Guy Marius Sagna ay principam la am mënoon nañ ko tuddee lanceur d'alerte bu fekkoon fonctionnaire la wala comme li Sonko def wala keneen dafa gëm ne niñ ko waxee Nelson Mandela li mu waxoon rek sama dund dund naa téeméeri at loolu du ndam lii ndam moom man lan laa def ci sama dund ba soppi dund ñeneen moom loolu la gëm donc du ay prison du ay réprimer ko gis ngeen bu ñu ko daa dóor dara yëkkati loxo yi ci kaw ñuy dóor ay liif image yaa ngi tey boo demee ci ci internet bi gis ko donc tey lii daf ko jàppe loo xam ne moom lu ko dal ci kaw xeex bi muy xeexal doomu aadama la moo tax day woyof ci moom Nelson Mandela bi mu génnee kaso ku la ne woon na def na at yooyu ci kaso doo ko gëm yëgalu ko yaramam parce que boo gëmee ne li ngay xeex tooñoo te danga koy def pour améliorer sa sooru euh, doomu aadama comme yow defe naa day woyof ci yow te suñ borom dala ciy dimbale donc tey bu génnoon ay ree boo ko fekkee prison day ree bu génnee day ree te wax na ko ci message bi defe naa nag ñooñu buñ comprendre loolu dinañ xam ne tey répression systématique bi ñu adopté ci moom c'est pas productif du indi ay résultat defe naa ñu may nit ñi sénégalais yi ñu wax liñ bugg a wax buñ paree ñibbiwaat seen kër wala même bu ñu jàppee ne endroit bi ñu ñëw war ñu foon a ñëw disperser leen ne leen jóge leen buntu pale ñu jóge fa parce que fukki nit mu nu ñoo xeex ak armée senegal pale ña fa nekk ay kalachnikov la ñu yor ku romb buntu pale tey xam ne mënoo xeex ak ñoo ñu yor ay loxoy nen donc du paranoya sax mais xëy na ëpp na li ñuy am lu ëpp paranoïa boo demee Mauritanie ñaari manifestation am na fi buntu pale boo demee États-Unis Donald Trump ñaata manifestation ñoo am buntu palais lycéennes yi dem nañ pour utilisation des armes circulation des armes aux États-Unis dem buntu Maison Blanche stade Broadway yi dem nañ ba buntu di xeex contre Donald Trump te loolu dañ leen a bàyyi ñu ñibbiwaat jàmm na ñooy démocratie gën a am doole ci dëkk yooyu donc tey defe naa gii ni ma pour répondre la bu ñu yaakaar ne dañ koy ébranler wala dañuy fexe ba li mu nekk mu génn ci looloo tax ñuy def lii defe naa dañuy juum rek parce que li muy xeex dina ko xeex dina am njëriñ wala doo am njëriñ loolu beneen débat la mais daal tey na mu doon dem démb noonu lay sourire tey.